nee naa leen asalaamaaleykum mbokk yi seetaan Dakar Net ñu ngi leen di nuyu yéen a ci seen biir émission lees waxul comme ni ñu koy defee saa su nekk émission bi nag nee naa leen bépp information bu nga xamante ni dafa soxal société bi muy fait divers actualité politique people lépp loo xamante ni rek société bi daf si am wàll lees waxul daf si wax bu baax a baax waaye nag du ma wét ci plateau bi benn yoon saa su nekk dama ciy ànd ak sama xarit sama confident sama sama lépp ah Sow Dieng tey nag neexul dress Sow Dieng sa verre bi ban verre la. fii Vermont la. ba xam nga ne yii neexoo deret. ah ah nu mu solo mu jëm mag léegi. ah nuy naa sama xarit bi kenn du yow. maa ngi lay fay chers amis téléspectateurs de Dakarnet gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen ñaanal yéen ñëpp jàmm te koy sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi am jàmm te ku may jàmm ku ne nga am jàmm yal na nu yàlla sàmm mm-hmm. yàlla aar nu yàlla yéer nu te yàlla muccal yàlla guddal sunu fan loolu nee naa ko Dakar ne nag nii lay neex nii rek lay demee saa ne mm-hmm. nee ko tey fii day neex waaye day repoñ ak Dakar net ça mm. na Hmm? mooy site bu mag bi Dakar waaw loolu dafa leer loolu mooy sëñ Bamba la kenn du ko werante ba tax na ñu ngi leen di fàttali rek ngeen itam abonné boo leen noppee ngeen daal di bës rek li nga xamante ne mooy cloche de notification bi ngir ngeen mën a am suñu vidéo en temps ndax nee naa leen ku bëgg information yu waxtu weer mënoo ko am feneen fu dul ne net site bu mag bàyyi ngi noonu aywa Dakar Net site bu mag baa ngi noonu Dakar neet mi neex te wóor tey joxe information. Hmm? yu fiable yu weer te wóor. Hmm? fii rek la lépp di xewee waaye fii la lépp di leere sit bu baax bu wóor baa ngi nii nee naa ko abonné ngeen bës cloche bi di ngeen xam ne. l'histoire retiendra tey foo tijjee tey. tey nag euh, damay tijjee ci mbirum fait divers yi nga xamante ni jamono ji nag meurtre yi bari na trop cas yi ñaa ngi rey ñi ci mu mel ni nag Sénégal moom wax dëgg fa yàlla euh, dañ ko euh, war nañ koo saraxal ndax li fi xew kenn xamul mu doon ñu daal di koy tijjee rek fii ca Médina foofu nag ak benn ndaw su jigéen moom nag moo daal di rey rek ki nga xamante ni mooy ex copain wam la ko wax nag copain bi dafa takk beneen beneen gel boo xamante doonul moom fekk ko fi nga xamante ni mooy euh, seen jouru mariage fekk ko ci lie bi nga xamante ni foofu lañ doon amalee xew ba mu jëm ko ñetti paaka yoo nga xamante ni daal euh, yu doy waar la mbir maa ngi doon nag fa la mariage ba daal di jaaree tas mu nekk mbir mu doy waar Saoudien bu ñu demee ba jigéen ñi am fit léegi di affronte góor yi ba leen di jam dëkk bi yàqu na. ah <laughs> man de damaa foog ne koo jaay <laughs> dëkk bi daal. Hmm. ne tabarkaale macha allah léegi dañ koo jaay. Hmm. ndax euh, bu njëkkoon ndeysaan pour nga dégg dee. Hmm. lu jafe la. Mhm. jam nañu nit wala ray nañu nit mais léegi jamante gi foowukaay la clémentine nañ ko def mhm. da ngay jotee nit nii sax ne ko téelat bal mu dee wala nga jotee jël paaka nag rël mu jëm mhm. ab li am nii xale bu jigéen li temps passé na fa ñaari borom oto di weerante si c'est que c'est-à-dire mu jël paaka nag ka dabbuj mu sedd fa guyi tey xale bu jigéen ndax lan ku góor ki trahir na ko takk keneen mu fekk sa mariage ba jam ko mais nag euh, dëkk bi ne la Serigne Cheikh waxoon rek moo am. Mhm. Sénégal buñ ko sangul mu sang boppam. Mhm. ñun ñoo war a moytoo fooyeem paaka ba pare arme blanche ni muy jaayee si mbedd yi dafa yomb. Mhm. tey ji matraque boo demee Colobane 2500 la nga jaayal 2000. matraque pour homme de tenue pour bu fu danger am ni nga naka catraque nit ñi daw. Mhm. loolu moo tax ñu naan matraque. dëgg la bala ñoo ñëw ci li nga xamante ne mooy meurtre maanaam fee yi et tout ñu ñëw ci carrément li waral loolu am ndax ndaw si kat dafa euh, doon génn ko waa ji ñu yàgg loolu waa ji daal di koy trahir mën nañoo wax loolu daal di takk beneen xale bu jigéen bu nekkul moom ndax jàppoo ne aussi tamit euh, mbirum euh, maanaam relation yi góor ñi ñu daal di fonk seen kaddu kàddu ndaam sax sëy ña ngi koy takkee ci aras waaye nag am na loo xamante nag moo ko mën a dékku mais fonk kàddu weesuwul euh, peut-être danoon génne kii di génne kii mm-hmm. te tey ji ma xamal leen góor du ñam di takk mm-hmm. góor gu la fooyee ba pare buy takki ku toog sa peggi ndeyam lay wër góor ñi dañoo bëgg ndaw de bu heure foo rek dinañ foo comme ñëpp béggi comme ñëpp xàppi comme ñëpp wax dëgg na mais nag bu heure góor gu la hébergé wala di dëkk ak yow suba ngoon guddee bëccëg li mu bëggee nga koy defal ngeen di tëdd bokk benn lal te takkagu la ko mu gaaw laa takk de jigéen ñi ñoo war a xam seen bopp jigéen ñoo war a valoriser seen bopp jigéen moo war a yëkki boppam xam ne li mu yor na ko denc ba gis jëkkër mais da ngay gis si tey ji koo xam ne day gis jëkkër tey sax takk tey ngir lan bëgg naa am affaire bi na dañ bu dañee vite fait xam nga ma commencé nekk ci li ma neex mhm. te ñi fi nekk ci ci leel neex dafa bari mhm. gis am na ñoo xam tey l'âge de 18 ans euh, gisatuñu papa nekkutee ñoo seen i papa nekkuñu i yaay ñu ngi si mbedd Dakar jaay di taxawaalu. mais moo la wóor que ka mu ko tra maanaam euh, it am na ndaw lan moo la ci wóor. non déggoo néew ma dafa am ndaw dama ni. Mhm. góor léegi dofuñu. mën nañ laa fooyee ba doyal xëy da wuti keneen même boo amoon ndaw te am keneen koo xam ne la mu leen di déggalee kii déggalewu leen ko. Mhm. tey ji man ak yow mën nañ di génne te kee ñu ngi génn tamit su ma ñëwee mer gi gën a yokk maxar mi karaw di gën a yokk essence di gën a taal te yow boo toogee ba xool toog sa bopp da nga naan pourtant kii moo a baax même bu la wanoon baax gi ci lii mais boo amee naxar yéen ñaar ngeen bokk mais da ngay génn jigéen boo xam ne da ngay am problème mu gën a yokk problème mm-hmm. te chaque jour da laaj mm-hmm. jox ma lii jox ma lee aw ma crédit sama yaay lii sama papa lii sama te kee foo leen toog waxtaanu àddina ngeen wax ah, ak jàmm salaam. Mm-hmm. boo booy cuit noonu la demee. Mm-hmm. jigéen ñi ñoo war a xam ñoom ñooy kan valoriser seen bopp yëkki seen bopp jigéen dafa cher mais léegi jigéen ñi comme fëgg jaay. foo dem fekk leen fa eh, respecté jigéen ñi nag affaire yi ñoo jaratul dara léegi man mii toog ci sa plateau bi di di di sa jigéen jigéen la euh, ba tax na góor ñi dañoo am habitude que ni duñu duñu takk ku ñu jàmm wala duñu takk ku ñu sekkal ba pare ngay gis xale bu ndaw nga ñëw imposer ko sa bopp miinal ko sa bopp bëggal ko sa bopp ba mu am euh, confiance maanaam sekk ko ak yow jox la ko boppam amaana yow la ko ma sa sekkal nga def ko li nga koy def ba pare xëy beneen jour dem seeti keneen ndax loolu jàpp ka jàpp ka nga ne góor dëgg noonu la war a doxalee ak jigéen. mais je vais te dire quelque chose. Mm-hmm. da ko way monde moo toll foo xam ne. jamono moo soppeeku. Mhm. bu njëkk pour nga gis lafu sër problème la. Mhm. mais léegi la nekkoo ci biir ki ñoo nekk ci mbedd yi. Mhm. léegi da ngay dugg kër néeg kuy marié sax mu jël fer yi koor ko si bopp lal bi. koor ko si coiffeuse bi. ngan di fer yoo xam ne benn bi si nekk daal bu dalee sa bopp bi nga toj. te léegi sutura moo amatul dañ naan xilmun wa sabrun sutura moo amatul bàmmeelu biir. amatul léegi lépp dañ koy wili pande. lépp dañ koy waxe da ngay kuy seex jëkkëram naan maa ngi nii lindamiel dëgg du ay fo lindamiel bu ñuy seen a fu moom jigéen ñi ñoo war a xam ñoom ñooy kan mais tamit góor ñi aussi benn instant da nga leen di dañ jigéen da nga leen di miinal seen bopp ba am cofeel ba bëgg leen jox leen seen lépp ñu koy takk keneen balaf. ndax loolu te pourtant am na keneen ku toppoon sa ginnaaw daw nga koy saaga xaw mm-hmm. weex ka mm-hmm. weddi. Mm-hmm. léegi monde bi kenn xamul nu mu demee dëkk bee tourné. dëkk bee tourné euh, comme ni nga ko waxee mu nekk mbir mu doy waar euh, naan trahison moom. nekkul lu neex te comme li ma wax sànq rek du ñëpp ñoo ko mën a dékku di lancer rek message sa moroomu góor yi. comme ni koy waxee ñu delloo si waa seen xel yi boo nekk ak jigéen ba mënatoo leen nekk mieux vaut nga teg ko. mu toog nga toog nga ne ko carrément mënatuma nekk ak yow ca teel ba nag mhm. mais nag doo bàyyi ba nga xamante ni nekk ngeen sori ngeen nga xëy un beau jour amaana sax bi ngay takki jabar bàyyante woo leen nga xëy un beau jour dem takki jabar loolu aussi nekk na loo xamante ni du jigéen ñëpp ñoo ko mën a dékku naam rafetlu mu li nga xamante ni xale bu jigéen bi def na ko waaye nag boo xoolee li ko poussé pour mu def loolu lu rëy la mais léegi jigéen ñi ëpp góor ñi fit jigéen ñi léegi ñu ëpp góor ñi fit góor léegi doxaanatu jigéen ñee doxaan si amul góor gu doxaaneeti léegi da ngay tëdd sa kër ñu woote ndax yaa ngi sa kër maa ngi ñëw benn góor doxaanee doxaaneetul léegi mhm. jigéen ñi ñooy doxaani góor ba pare léegi jigéen ñi boo xoolee ñooy jam lii am ni amoon na te Ouest Nord Foire gi mhm. temps yi amoon na Ouest Nord Foire xaw ni am na beneen gaayin boo xam ne jamoon na gelam aussi tamit ndax gelam da doon keneen mhm. ñaata divorce ñoo am ren ci ñu loolu lay sax monde bi moo toll foo xam ne tey jii time is money la ko jigéen ñu jëlee life fi dund ki ñi ci ragalati yàlla bariatul dañ leen di compter boo na un doon te pourtant yàlla ji yàlla démb moo nekk yàlla tey ba tey yàlla ji nekk 1960 mooy existé ba tey bon lan moo tax ñun joxatuñu suñu cër yàlla suñu borom lan moo tax gëmatuñu sallallahu alayhi wa sallam borom barrière ur ba ci midit bàyyi Fatima Roqay bàyyi Ummu Kalsom ñoo xam ne ñooy suñuy référence léegi ñu jël suñu life yëpp tekk ci ay États-Unis gi même ba américains yi léegi jigéen ñi ni américains di solo la ñuy solo te gis naa sax tuba yu bees yu génn yoo xam ne seen fii la nekk ci wet gi maanaam seen lépp mu ngi ci mbedd mi mm-hmm. am na bëri yu xew yoo xam ne genre V la sa ween yëpp ci biti lay nekk léegi yow nga bëgg na góor bañ góor ñi tamit lii mm-hmm. góor ji tamit dañuy gis seen xel di nekk ci jigéen ñi ñu ciy bëgg li nga wax sànq ci kaaw divorce yi am léegi yow lan nga jàpp ke nga looloo waral kër yi maanaam ménage doxatul sëy yi jaaratul na mu daan na jaaratul yoon maanaam euh, euh, mars avril nga tas lan nga jàpp lan nga jàpp xam lu waral ku si ku sëyi léer mhm. ñoo fii la tun jigéen gu ne yaa ngi dix copain gel góor gu ne yaa ngi vingt cinq gel tey da ngay tànn da ngay làmbatu ba daj ceen takk mhm. ndax am na loo séntu ci moom tey jii dama lay doxaan yow jaara am na lu ma jaara papaam am na kër am nay oto papaam am nay bien jaara day tukki partout dans le monde ma ñëw di la baab di la baab ba takk la mhm. un mois li ma bëggoon jaara jëndal ma oto wala jaara jox ma oto un mois deux mois sëy ba tas oto bi man maa koy mm-hmm. ku góor ki am na heure kër boobam am na oto ba di ka nax di ka nax ba takk bés takk mm-hmm. te jigéen ñi nañu bàyyi leen loolu dangereux jigéen ñaa ngi koy def ñu takk ñu di leen takk seen jour réception ñu sol si set yére robe mariage blanc kenn du ko simmi ñi ko def ni seeni sëy day tas mm, loolu révélation bu rëy la de robe robe blanc bu mm-hmm. mariage bu blanc bi ngay sol di ko sol kenn du ko simmi ku ko simmi sa sëy du def deux ans ñi ko fi simmi ñëpp seen i sëy tas na. ah billaahi kenn du ko simmi. lan nga fan nga ko teg wax boobu. rob boobu mag aada la mag ñi ñoo ko def ci mag si loolu ay jamono boo xoolee ba àdduna tukkee commencé ba tey ñu commencé di simmi di sol ay six yére sept yére fa la sëy yi tasee loolu sol sol ko sa làng ga looy sol sol ko sa xew ba journée bi guddi gi ñëwal sa robe blanc bi nga sol ndax ay ñaan moo ciy am blanc dafa baax. Mm. tey ñu lay takk doo gis bu ñu lay takk ñu solo la robb tegal la kool gu weex nga toog sa diggu lalu yaay mm. ku yaayam nekk sëykat la ñuy toog sa diggu lalu yaay mm. am ñoon seen yaay duñu sëykat dañuy àbbi yaay dem toog si lalu keneen mais ku yaayam di muñ nekk sëykat la ñuy muur lu weex mu toog si diggu lalu yaayam ba ñu mayee ba pare ndax dañu bëgg tànk yaayam jaar mu jaar d'accord ñu gis ba pare réception day am nga sol robb bu blanc bi duggeeg moom simmi ko soli mauve soli simmi ko soli rouge simmi ko maanaam sol si solo amul sens léegi sax tendance sañ ko def ñu bari dañuy dugg ci sëy ngir toog am na sama benn xarit bu ma ko doon wa mu ne mu jaari jigéen ñu bari léegi lu leen duggal ci sëy mooy que nañ toog ci seen lalu yaay rek di sinap ne am naa jëkkër ah. après quelque temps après ñu divorcé ñoom lu leen soxoo rek toog ci kaw la toog ci kaw naan mode mariage mariage validé dugal statut bu subaa ñu ñaan baat ak affaire bari jigéen ñi toog si sëy yi jigéen ñi toog leen seeni sëy mm. góor dafa jafe góor dafa jafe de. Mm. ku topp siisaa geex tux mi am ci dëkk beeg naan gi am ci dëkk foog ne góor ji loolu leen naxee dañ leen di na góor ji bëgguñu kenn fu ñu cuuba doyal bàyyi puus keneen ñëw ñu cuuba doyal puus keneen ñëw. yow nga jël da nga jël euh, mbirum euh, maanaam parce que divorce yu bari yu ab léegi da nga jël lépp xëpp ko jigéen ñi que ni jigéen ñi. ak góor ñee yem de mburu foofu ko fëriñ la ah, kon nag nay tolloo. foofu ko fëriñ. Mm-hmm. góor ñi sax ñoo xaw a ëpp sens tuuti màggatum jigéen dafa gaaw. Mm-hmm. jigéen 40 ans 42 ans day ménopause jigéen góor 40 ans fa la di commencé. Mm-hmm. te jigéen 42 ans day dem ménopause est-ce que xam nga la. Mm-hmm. te tey jii dañuy takk dañuy takk xale bu jigéen de un bu njëkk dañ lay takk yóbbu la ci appartement wala yóbbu la si néeg boo xam ne yéen ñaar kese bu njëkk dañuy takk bàjjen di conseil nijaay di conseil. Mm-hmm. xarit di conseil jarbaat di conseil mais tàngal mante frère sax day tas sëy loo reeree biig sëy tas foo biig sëy tas waaye léegi sëy yi xanaa si leen di takk. waaye buum takkatu leen. macha allah comme ni nga wax rek man moom damay ñëw ci euh, li may wax saa su nekk rek sëyub Sénégal moo yombul ndax euh, euh, da ngay da ngay sëy ak goro. sëy ak rakki jëkkër sëy ak ñëpp waaye ba tax na rek comme ni noonu la ñu xamee ñuy sëy te delluwaat ci sëyu maam ya bàyyi sëyu léegi sëyu appartement yi toj na réew mi xale yu jigéen ñi léegi li ñuy xënt mooy que dinaa am sama jëkkër mu yóbbu ma si appartement bu la yóbbu ba sa kër goro ya sax di nga def le tout le tout pour que mu wutal appartement loolu it day indi jafe-jafe mu nekk mbir bi nga xamante ni doy na wax trop di ñi rek loolu moom gàcce la ci Sénégal ñuy wund euh, lu toll lim mu toll noonu. 325 000 euh, divorces. divorces par par euh, ñaata par jour. par jour. waaw mu nekk mbir moo nga xamante ni doy na waar tey jégg na doyoo ñu ñaaxaat xale yi rek ñu daal di gën a sëy xam ne sëy daal jaamu yàlla la. waaw seede jaamu yàlla na ku nekk jigéen ñi nañu respecté góor ñi jël cër bi delloowaat ko mag ñi góor ñi respecté jigéen ñi àddina dara yàggun <laughs> ñu daal di koy euh, daal di dem nag fi nga xamante ni mooy kaawu Marichou Marichou nag mi nga xamante ni jamono ji ñu toll nii bu ñu sukkandikoo ci sunu vingt 24 ñu ngi ñuy xamal ni Marichou nag euh, dafa wanoon loor te ki ko ko teg nekkul woon kenn ki nga xamante ni mooy euh, Bilil Bilil nag moo nekk Rijal ci ci série Infidèles moom nag la ñu wax que ni moo daal di teg Marichou loor Marichou jamono ju ñu toll nii am na doom doom bu jigéen mi ngi too doom ji sax jamono ji am na deux mois. mu nekk mbir mi nga xamante nii nag information loo xamante ni jot nañ ko ci waa Sunugal 24 Saoudien. ah Marichou benn bi. Mhm. ah ah théâtre de ñu ñu film kat yi ñoom seen biir la ñuy liwante mais na seeb se loolu moom bu amee euh, dina ma jaaxal trop xaw ma nag astafurlah yal na ma yàlla bal xaw ma ndax am na amul mais dama xam ne Marichou intelligence gi nekk ci moom nandite gi moom moo doon. Marichou xanaa doful bay ëmb. ah déedéet bu wax lool kii ñëppay juum yàlla rek. déggoo li ma la si sama xalaat man sama xalaat laa la joxe de mm. néew ma néew ma am na wala amul. dama si sama xalaat. Mm. Marichou dofu fi bay ëmb. ak fi réew mi toll ak moom li mu toll. am na doom déggoo ñu ne la ëmb na ba am doom mais li nga wax par contre loolu laay nekk di la wax ma nekk ni euh, doo nekkul ku ëmb rek dangaa bon wala ku ëmb rek. da intelligent comme ni nga koy wax dara. non ku ëmb muusoo. non dëgg jigéen bu dof ba ëmb muusoo. donc ku muus dëgg non non du mbiru yàlla ëmb moom a judd dafay judd ma xamal la je veux dire que ëmb du mbiru yàlla sa nafsu la foo foo foo mooy ëmb li yaa ngi toog la moo tax ëmb xoolal déet dama laaj tey bu ma toppee sama nafsu man di fo di foo di foo di fo ay nañ bàyyi bu ñu fooyee ba doyal naan mbirum yàlla la boo taaloon gaz bi toog si na yàlla la Marichou xóoruma nag ndax ëmbul nag ëmbul mais dama ne doful ak ni mu mel ci réew mi ak ni Marichou toll ci réew mi sama xarit la mënuma see sori ak ni mu toll ci réew mi bay ëmb. en tout cas information boobu ah, ba mu leer nañ ñu daal di jàll nag ci kaw li nga xamante ne mooy meurtre yi ndax jamono ju ñu toll nii naam am na ah, jot nañ ci wax tuuti ci kaw ki nga xamante ni ah, mooy xale bu jigéen bi nga xamante ni moo rey ex copain bi ñu wax tuuti nag ci saoudien ci jamono ji ñu toll nii xale yi ni ñuy reyee nit yi. nit yi di dee. Hmm? jamono yow yëg nga ne sama xarit dañ ko doon takk. kan Astu Lawbe. waaw borom lëmbal bi. borom Astu Lawbe borom vuruj borom. borom vuruj varañ varañ. am na borom sànq la may woon na ma am naa jëkkër ma na ko yëg naa ko. <laughs> dañ ko doon wax nga dëgg ba ñu ngi koy souhaiter un heureux naa di ko wax rek euh, yam boobu daal di barkeel yàlla may ko ci. moom de si biir robe bi de solul balaa de. si. solul blanc. si so moo xawma genre moom la sol. waaw so moo la sol mu ngi nii waaw. ba tax na ñu ngi koy la uh, sama. asalaamaaleykum la moo tax solul blanc. suñu suñu xarit boobu la yàlla may ko ay doomi Bakel. ah ni nga bëggalee xoli Sénégalais yi yàlla bëggalee noonu nga am ci uh, nga am ci tey ci sa biir say boobu noonu uh, saw Dieng. waaw yaa ngi génn ci sama débat ba waxal ci kaawu meurtre yi. non meurtre yi xam nga tey ji mooy li ma la wax sànq rek arme blanche moo yomb Sénégal léegi. Mm-hmm. arme blanche te léegi te arme pistolet léegi jaay gratuit. comme ni nga ko waxee sànq rek ñu daal di euh, daal di jàll ci li nga xamante ni mooy kaaw maxtu yi nga xamante ni jamono ju ñu toll nii nag ah nit ñi agressive nañ ñi rey bi bari na euh, kawte bari na. xanaa dama dama yaakaar ni dañoo gisut yàlla suñu borom jamono ji li muy def nii di rey ndaw ñi te ñoo ñu ñu rey gënuñ ñun gënuñu leen ba mu bàyyi ñu fi ñun xamuñu suñu tey xamuñu suñu dem ba tax na lan nga gis que ni lan nga jàpp que ni moo waral nit ñi di rey moo seen moroom yi mel ni ay weñ la ñuy rey. waaw mais xam nga tey jii boo de un rek dëkk bi amul liggéey. Mm-hmm. ña liggéey dàq nañ leen nit ñi dañuy xonet dañuy mer. Mm-hmm. tey ji ma gis jaara di doxantoo iPhone 12 Pro. dëkk ak man mënumaa am Nokia. wala maa am téléphone bu baax. jaara suñu borom dimbali ko muy dawal oto man aw ma oto damay iña dama lay iñaane. même su may booleex ñu la jam sax dama lay booleex ñu la soxore soxore ba yàqal la si li nga am te waykat na nit ku lay wut jéem-jéem jotu day fet fi nga gën a jege mu jaare fa ba yàqal la te ji Sénégal agression yi bari na fi rey nit ñi bari na fi lool comme mbàccum gerte. Mm-hmm. lu yàlla jël ñi ñuy rey la lépp. Mm-hmm. léegi da dox si mbedd bi sax sa comportement nit nit nit ki poignarde la jël sa montre. Mm-hmm. montre bi 5000 lay jar wala 2000. nit dox kont na si mbedd jël sa téléphone balaa moo réagir ren na la bu yàgg ñëw fi làmb say poos fekk si fukk ak juróom. man dama jàpp ni euh, li tax ñuy rey li tax ñuy rey nit ci base bi soxor la. comme ni nga ko waxee sànq rek dangay gis koo xamante ne yàlla bind na ko mu mel ni mu mel maanaam yàlla wërsëgu ko wërsëgu ko maanaam mu am alal boo xamante ne yow amuloo ko nga soxoree ko ko teg ko bët ndax ah, dama def benn seetlu que ne yi nga xamante ne réseaux sociaux yi ci mel ne si Snap yeneen ak yeneen Instagram nit ñi dañu am deux vies maanaam vie bi nga xamante ne ñu ngi koy dund réel ak vie boo xamante ni dañ koy dund à travers les réseaux sociaux loolu nag boo nekkee ab ab nit ku xam koo xamante ni euh, da ngay gis nit rek ñee ko gis nit ki ci Instagram mu dem ci resto bu chic taxaw ci oto boo xamante ni amaana sax amu ko yor iPhone am 12 am yow nga toog mënoo am sax iPhone 6 nga daal di mel daal lu tax aw ma lii wala sama morom bi am lu tax aw ma ko. rancune boobu di nekk sa xol bi nga koy dundee ak moom day tax ne même ñi ngay gis sax da nga yaakaar ni ñu ngi at naag li ci biir alors que ba tey euh, vie réseaux sociaux yi ñi di ci vie ñaar double vi vie ba nga xamante ni da ngay àbbi yére abbi oto loolu aussi dina la indil ay noonu waaye loolu aussi du raison ba tax nit di soxoree nit ki ba koy rey nit di soxoree nit ki bay jël loo xamante ni daf koy gaañ di ko teg ñu gis ñu ko gis nag comme sànq li nga wax rek si ménage ci ci sëy yi maanaam ci ménage yi euh, jëkk góor ñi di rey jëkk di rey seen jabar yi lu ko waral maanaam sama jabar ji toppatoo ma wala mooy kaa bi ñu mujjee gis toppatoo ma deful ma defulu ma nii defulu ma naa wala sama jabar ji abandonné ma bàyyi ma def bàyyi na ma dem mu mel ni comme euh, mam Abdou Aziz baax li mu doon wax rek waxam jooju euh, waxu démb la de waaye mooy tey ji lañ ko war a daal di rek utiliser mooy nañ tàppe xol yi Sénégal jamono ju ñu nekk lu waaye def lu dul tàppe sa xol ànd ak sa ngor ak sa dignité tey tey jaamu yàlla te xam ne kat déggi gaaw na defoo leen euh, saw je loolu na mais nañ milieu politique lañ toll actuellement sacrifice yi day bari loolu ci réew mi. Hmm. nit ñi dina jam nit sax te du ko tey. Hmm. nit nit a gi rey nit te du ko tey. Hmm. xabtal gi dafa bari ci dëkk bi sarax yi dañoo bari ci dëkk bi te dëkk bi Sénégal dañoo war a génn ay sarax. gis nga géeju géej géeju ngor war nañ faa ay nag. laa doon sarax yi sarax yi Sénégal dañ fay war a génn ay sarax. ginnaaw pale war nañ faa rey juróomi nag. ginnaaw pale bi noonu war nañ faa rey ay nag dama koo xam dama koo xam. dama koo xam maam euh, ngor. ngor war nañ faa yóbbu ay nag aussi ndax sarax Dakar day laaj sarax. Sow Dieng nëbb ma sa bopp de. non non nëbb ma sa Dakar day laaj sarax ñun ay lébu lañ. Mhm. la lazi ay lébu lañ ñun Sén boo Sénégal sarax bi fu war buñ ko fi defoon nag musiba day am ci réew mi. Mhm, nañu saraxe deret tuur deret ju bari ci dëkk bi saraxe ko. Mhm. seetkat yi wax nañ ko de te njabarkat yi wax nañ buñ ko saraxee ñun ñooy reyante si suñu biir ba jeex. deret dëkk bi day laaj deret actuellement. président ne dafa war a génn ay sara lu ci mel ni ay nag yu bari war nañ koo génn ak ginaar ak bëy ak ay béy ndax période campagne gi ñu toll mhm. réew mi day laaj sarax mhm. bu ñu saraxewoon rek ndax dëkku dëkkub tuur lañu nekk mhm. ñu fi nekk dëkkub tuur dëkkub mam kumba làmb dëkku mam kumba bank dëkk boobu lañu nekk bon tey ji bu ñu demoon Ngor ba Wakaam ba Yoof te saraxew ñu rek dëkk bi toujours jinne yi ak rab yi dañoo nekk si suñu biir di dund ñun ndax ñun ñoo leen déplacé fa ñu nekk. daal jàpp nga ni nit yi dañu nekkee di reyante mel ni ay weñ naturelul. du naturel maanaam jinne yi dañ fa jaxasoo. ak dañ leen jaxasoo ak seytaane yi. Mhm. seytaane ñoo ñëw ba jaxasoo ñun ndax tey ji àll bañ daan fe fooyee ñoom euh, jinne yi àll bañ nekkoon di fréquenté jëlee nañ leen fa tabax kay usine ak i kër léegi ñoom ñu ngi si suñu biir mhm. yow da nga jege gis nit oto bi jékki-jékki këpp mhm. xam nga lu këpp oto daw si péage bay tàkk mhm. lu taal oto ba mhm. te pourtant oto bi muy génn këram impec nit di waxtaan ak nit mu jël paaka jam la di toog di waxtaan ne nit rey si nit pare doy wax tayuma ko mbaj nit mu dee maanaam dañu dem ba rax ñun te Sénégal cent vingt huit nag la ñu war génne saraxe ko diggante Bargny Tëngéej ñaŋal jàpp todd ba ngapparu yow li ngay wax nii yow sa xam-xamu eh, bopp non li may du ay caaxaan bi lay la si li may du ay caaxaan Sénégal dañoo war a saraxe dret bu fi seetkat toogoon léegi mu wax la li ma lay wax nii. non dama koy dégg pour euh, ki nga xamante ni mooy Selbé Selbé saa su nekk mu wax ko que ni Sénégal na nguur gi génne nag nañu rey deret nañu neexal ñi nga xamante ni ñoo ŋànk Dakaaru Njaay maanaam lébu yi comme ni nga koy waxee mu nekk nag mbir moo xamante ni ñu ngi koy soofantal waaye war nañ cee def ab taxaw seetlu xool ndax Dakaaru Njaay jamono ju ñu mel ni nu mu mel nii hmm, doy na waa de. dëgg dëgg la ndax temps dama fi dem bar Bargny seeti benn seetkat ñu naan kaan maam Yacine. bi ñu toogee waxtaan maam Yacine sama xarit la mais dafa nëbbatu du wane ay mbiram. ñu toog di waxtaan mu xool xool reetaan ma ne ko la Yacine Ndiaye mu ne ma lii ak lii dalay wax lu bari loo xam ne ñëwagul. yaa ngi def pub bi en tout cas de toute façon daal. Hmm, euh, ginnaaw bu ñu jugee ci li nga xamante ni mooy euh, wàllum tuur mi comme ni nga koy waxee. Ah, dañoo war a tuural dëkk bi de nañu dajaloo. nañu nañu dellu ci yàlla saw ji nit ñi ci bàyyi mooy que dañoo ragalatul yàlla. cosaan am amoon cosaan bu njëkk xamuñu xamatuñu nu ñuy jull jàngatuñu arxuraan saa su nekk ñu ngi nekk ci suñu bopp jël suñu téléphone yi sinap ah góor muy góor di jigéen kenn amatul jotu julli. tee sa loxo yi ñaan yàlla vocal yi mu mu jàppale la dimbali la aar la yiir la suturaal la non non ko def comme man rek sama kaas man laa koy njëkkee. temps yi sax nag depuis bi nga xamante ni jóge naa dëkk bu sell ba nga xamante ni mooy la eh, ci gàmm gi paase boobu ba tey waxtu daaw waxtu du ma raw. ba ma demee tiim sama sama sama Baye Niass dama ko ñaan ka ni waxtu julli bu jot jotatee yàlla nga ma may force ma koy julli saa su nekk dama ko defee ba tey nag saw jee dafa euh, ma macha allah. sax waxtu bu jot damay julli daan naa julli nag mais dama daan julli tey tëba mais dama gis que ni jamono ji metti na nit yi ñi ngi dee. yàlla mi ngi rey. yàlla benn sutura ba tax na ñu ngi ñaan rek uh, jàmm am. ñu daal di ñu ñu dellu comme ni ñu xamee woon dëkku teraanga dëkk bi nga xamante ni ñëpp dañ fi daan daw di ñëw ndax jàmm ji fi amoon Saoudien defe naa li ñu amoon ci émission bi jeex na ñu daal di tàggatoo ba beneen yoon incha allah suñu jeex na. ah suñu temps na. Mm-hmm. ah ñu tàggatoo ba beneen yoon rek la ma naan wax waxaat. tey nekkoo tey émission bi maa ko def tey moom. dama naan wax waxaat du bari wax waaye leeral ay wax dong la ca tax ngërëm nag dina ñeel. ku ci mel ni euh, sama xarit ba madame Fall Diya Issa Couture vous donne rendez-vous le 18 ak le 19 décembre fële ca fële ca hôtel King fat Palace retrouvailles des grandes marques Yaa Issa Couture vous donne rendez-vous là-bas man la Saoudien Noir maa nga fa ak Yaa Issa Couture kat bu mag bi ci réew deux fois Ciseaux waaye cantax ngërëm day ñeel sous le patronage de monsieur Pape Gueye Yoss borom bar Bargny et les Amazones nee na ma saoudien ma ne ko daan ma ne ma def mobilisation forte délégation pour fal suñu njiit Badara Diop le futur maire de Bargny ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla may ndam yal na nekk maire Bargny ci barki yonent bi Papa Gueye Yoos doomu ndey Badara Diop maire Bargny bi le futur maire de Bargny kontaan na di béggee waa Bargny ñëpp euh, di leen ziar waaye cantaa ngërëm day ñeel waa Ouest Foire gi ma dëkk maa ngi leen di béggee moo nami de valeur Pape Sidi Fall maa ngi lay béggee Boubacar Diallo maa ngi lay béggee di béggee sama xarit yëpp samay soppee su may am di jàmm cantaa ngërëm na leen ba ba beneen yoon ba kañ sax sax mercredi ba mercredi incha allah rabbi kutubihi wa rasulihi amaana amaana. Ah, voilà seen mbokk seen xarit Sow Dieng mi ngi noonu moom tey daal ñi la dëkkee ak ñoom ba tax na dañ koy dañ ko jéem a gérer rek ah, mbokk yi li leen leen indiloon ci seen biir émission les waxul ñu lay demee saa su nekk di leen wax ngeen koy xaar mercredi samedi bu jot ñu dinañ jox dig daje allah ba beneen yoon merci beaucoup. nee naa leen sooy nee naa leen